itteem di wut lu mu naan bu raflee itteem di wut lu mu sol bu ñàkkee fu mu tëdd itteem du doon lu dul am néeg ak kër gu muy nekk yemale foofu itteem moog bàyyi ma yem ndax doomu aadama dafa fasante yàlla wëllëre bi muy ñëw ci àdduna te wëllëre bi li si jiitu mooy jihaar jihaar nag dangay ngay wàcc sa bànneex fale di wéyee naqaru tey ngir am bànneexu ëllëg muñ yonent bi sallallahu alayhi nee na mooy genn wàllu ngëm lu tax mooy genn wàllu ngëm li yàlla digle lépp bala nga koo def na mu ware muñ ya ca des lim la tere lépp dangay amul muñ ngir man koo bàyyi fexe ba kenn mën laa bañ yóbbaale ci lu neexul yàlla ab jullit yonente bi sallallahu alayhi wasallam mela nag bu mu ne al muminul ne xayrun min al mumini daifi ab jullit day melowoo melowoo xam ne ku mu fekk ku ànd ak moom ku jaxasoo moom bu la mënula soppi doo ko mën a soppi moom moo lay jéem a soppi jëmale ca la mu nekk muy lu baax ndax yow mi nekk ci lu baax yow lañu sant nga amul njàmbaar way ca loola dëgër ca fi nga xam ne néewul ci dara lu topp bànnee xam yaa ko war di xupp yaa ko war di yee ndax àq la joo xam ne daañu ko laaj ëllëg dañu ne nit daañu seeti jëfam ëllëg ba war a dem àjjana mu dem ba aw yoon wa nit poñe ko ne ko amel nga ma xaq yoo xam ne bala ngay dem dana ma ko fay mu laaj jooju xaq jan la mu ne bis toog na ba waxtu julli jot nga jóg dem julli ci dellu si te nee wala mën nañ julli wala fekk nga ma bis may def loo xam ne du noonu te jéemu lu ma ca génne waxlu ma dara gannaaw xaq yooyu lu ñuy topp la nit ku nekk war naa tàmbalee ci yar boppam ba noppi yar waa këram bu ko defee ñëpp yaru asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu